mu ne wa salaatul jumaati jullig juma fardun faratala alal ayaani di war jëm yi jullig juma faratala goo farataay jëmm la yow kese yaa ko mën a defal sa bopp kenn mënu la kaa defal kon kenn mënu la kaa defal farataay jëmm la wala haa ñeel ko shurutul wujubin sarta yu koy wara wa arkaanun ay ponk wa aadaabun ay teggin wa anzaarun ak ay ngant yi nga xamante ni tabiitu bihu dana dagal at taqalluf at taqallufu wuute anaa moom am na sarta yi nga xamante ni mooy wéral jumaa am na sarta xamante ni mooy tax soo julee ji wér ay ponk am ay teggin yoo xamante ci jumaa ji am ay ngant yoo xamante ni mooy am ngànt yoo xam ne soo ko amee mooy tax doo eh, mu dagan si yow nga bañ a mais su dul su dul fekkee amoo ngànt yoo da ngay julli mu ne fa amma shurutu wujubiha sarta yu koy ah, waral nag ah xam nga surutu wujub bi sart yi koy waral moom la njëkk wax moom la leen njëkk a jàngal nee na sart yi koy waral fa sabaatun juróom-ñaar la sart waral juróom-ñaar bu si njëkk al mooy doon julit wal buluuxu ak jot baax wala xaqulu ak am xel wa zukuriyatu ak doon góor mu ne wal hurriyatu ak doon góor wal iqaamatu ak sax wa sixatu ak wér sharta yu koy waral sànq dama jum yu koy wéral yu koy waral juróom ñaar la bu mooy noo doon julit yéeféer kon juli juma warul ko su julee te su julee baax li nga xamante ni warul la rek soo ko li nga xamante ni yéeféer bi xam nga julli jumaa waru ko kon su ko defee du baax kon julli juma waru ko su ko defee du baax mu ne ñaareel bi mooy jot baax mat mu kallaf kon xale su jullee juma baax na waaye waaye waaye daal ah, warul ko daal mais mën naa di dem juma ja ndax mu tàmm ko ba mu nekk mag mais su demul juma ba mu nekk xale bu su nekkee mag mën naa tayal di bañ a dem am xel wala xaqul ak am xel kon dof juma warul ko wa zukureta ak doon góor jigéen juma warul ko wal hurriyatu ak doon góor jaam juma warul ko wal iqamatu ak sax ma ki nga xamante ni dafay tukki kooku tukki gu sori ko juma warul ko wa sihatu ak wér ki nga ku ku feebar la ku juma warul ko bu fekkee feer bu metti la waaye bu fekkee feer boo xamante ni comme ay boobaay métti ni tuuti rek xool mu xaw a soj rek boo moom mën na am kon yooyu ñooy yi nga xamante ni ñooy waral juma mooy doon jullit jot baak am xel doon góor doon góor saa sa wér wa amma arkaanuha waaye ponki juma yi nag fa xamsatun juróom la ponki juróom la al awal bu si njëkk al masjid mooy jàkk allazi bi nga xamante ne yakunu dana nekk jaamian di juma bu si njëkk mooy nañ am jàkk ji nga xamante ne danañ fa jullee juma joo xamante ne foofu la ñu jullee waaye bu fekkee amuñ jàkk ñëw rek toog taxaw si mbedd mi foofu la ñu jullee boobu baaxul athaani ñaareel ba aljamaatu mooy mbooloo walay sa nekkul lawum di leen ñeel xaddun doy inda malik fa malik mu ne ñaareel ba mooy na nekk mbooloo kon ay ñaari nit yi ñetti nit mënuñu julli mbool mënuñu julli ajuma mu wér kon nañ nekk mbooloo fekke mbooloo nag si Malik boo amul doye nu mu mënti toll ay milliards milliards yi sa baax na amul doye mu ne ballu fi nekk laa budda du mën a ñàkk an takunu mu nekk jamaatan di mbooloo te xaraa dana sexe biim si ñoom xaritun dëgg nee na jumaa ji ñuy julli jumaa ji war naa nekk mbooloo boo xamante ni ñoom comme suñ nekkoon si dëkk ay bandi ñëw fa ñoom daal danañ mën a sàmm ah, contrôler seen dëkk bi sàmm ko daal ba xamante ni deeluñ mën a ñëw lor leen waaye mbooloo moo xamante ni su dara ñëwoon fee jóge ko foofu yooxu rek ñoom ñëpp mën nañ a daw mënuñu téye seen alal mënuñu téye dara kon ñooñ duñ téye jumaa kon ñooñ suñ jullee baaxul mbooloo moo xamante ni dëkk dana fa dëkk dana fa ah, soxoo daal foo mën nañ dëkk daal wa rajaa lëngal na baadu aymatina ñenn suñu njiit annaha ne moom tajuus dana dagan bisna bisna yaashara si fukk ak ñaar rajulan si góor ba xiin di aji des li salaamiha bañ sëlma am na ñenn si njiit ñi borom xam moom ñu ne su ajuma su amee fukk ak ñaari góor rek mooy douze personnes yoo xam ne ay góor lañ rek te mën nañ mu kallaf rek kenn su ci nekkee xale bu waa du julli gi du su ñoom ñoom ñoom ñëpp seen julli gi day yàq si digg bi kenn tojle si ñoom ñëpp lay seen julli yàqu kon char char fekkee mën na fukk ñaari góor boobaa mën nañoo julli mbooloo waaye si charta ñoom ñi ñoom ñëpp ñu nekk mu kalaf te nekk ay góor bu ñu nekk ñu dof yooyu yëpp te ñi ñi nga xamante ne danañ julli ba julli gi sëlmal te kenn du si tolle kenn du si def dara fekkee kenn da saa tolle rek boobaa ñoom ñëppay àndoo yàqu su si dara manqué rek kenn manqué rek ñoom ñëppay yàqul a thaalithu ñetteel bi alxutbatu mooy xutba al ula bu njëkk bi waye moom rukunun ponk la ala saxiixi si liy wéral jumaa ji wa kadalika nag alxutbatu xutba athaani bu ñaari wal almashhur si lu gën a siiw nee na xutba bu njëkk bi ponk la moom sama foofu moom si ponk yi bu ñaareel bi ponk la waaye si lu gën a siiw kon am nañu ne du ponk wala bu dee du mën a ñàkk an mu nekk baada zawaali gannaaw tusbaar wa qabla salaat ak njëkk julli gi xutba bu njëkk ba ak bu ñaare bi yëpp avant gannaaw tusubaar lañ koy def mais duñ ko def njëkk tusubaar suñ ko defee njëkk tusubaar julli gi baaxul duñ ko def tamit njëkk ñuy julli nekku na dañuy julli ba pare dóori xutba déedéet comme comme ay korité yooyu déedéet avant ñuy julli ba tusubaar jotee avant ñuy julli ba pare doori julli mu ne wala sa nekkul fil xutba si xutba gi xaddun doye inda Malik sa Malik aydan ba tey fekkee da ngay xutba loo waxtaan amul amul amul doye comme duñ la wax lii ngay waxtaan temps wala bu da du mën a ñàgg an takuna mu nekk mimma si li xam ne tusummi dana ko tuddee al arabu arab xutbatun xutba mu ne xutba gi daal na nekk loo xamante ni arab dana dana ne lii lii moom xutba la waaye ñëw wax say ñaari baat dem loolu kenn xamul nga ñëw waar nit ñi wala ngay wax si lu xew si jamono ji loolu loolu la ñu tuddee xutba waaye ñëw rek wax lu la neex dem tu bëriwul sax kàttal ko bu waayoo xutba mu ne tustaab den sopp ataharatu laab fii haa si xutba gi ki xutba sopp nañ si moomu laab kon nekku na dafa war si moomu laab mais si julli moom mais si julli moom dafa war si moomu laab dafa war si moom jàpp jiitu gaay mais xutba gi ngay sopp rek wa fi wujubil qiyaam nekk na si war a taxaw lawuma ñeel imaam taraddudun déng-déng neen imaam si xutba mu taxaw loolu am na wuute gaa dégg nga dégg nañ waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàpp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam masta xutba toog Abubakar masta xutba toog Usmaan masta xutba toog Ali masta xutba toog kon Abubakar Omar Usmaan Ali ba ci yonent bi sallallahu alayhi kenn masta xutba toog Muawiya kese moo masta xutba toog te moom ba mu xutba toog noon dafa dafa lor woon daa amoon lor kon kon daal lu gën mooy sooy xutba daa nga taxaw wate yontu musu kaa def mu ne araabi on ñeenteel bi si ponk yi al imaamu mooy imaam mooy jiite wa min sifati yi bokk na si melo imaam mu nekk mi man si nga xamante tujibu tajibu dana wan ali si mu aljumaatu juma nee na ñeenteelu ponk yi mooy mooy ñu am imaam mooy am imaam mën na jiite waaye nag imaam boo xamante ni war na ko waaye wuxul imaam boo xamante jigéen la wala imaam boo xamante ni du yéeféer la wala imaam boo xam jotu baax wala am wala dof la wala di jaam la wala sax moom ah, nekkul ki nga xam dafa feebar yooyu déedéet il mu nekk imaam boo xamante ni góor la te am na xel jot na baax te du gor la te sax na te mm, wér na lépp waaye bu fekkee benn si ponk juma ah, wuju mooy yi waral juma benn si juma manqué bu ko du nekk imaam mu ne ixtisaar ngeen may tundiku mina sabi si xale ngir suñu ne la imaam boo xoon tajibu mooy li suñu waxee loolu mooy may tundiku xale comme xale nga bañ mu ji wala musaafir wala kii tukki wa xëyri ma ak lu ñoom ñaar wala sax mu nekk kii nga xamante ne dafay tukki mais ki nga xamante nii ne dafay tukki waaye moom njiitu moy mooy njiitu comme mooy buuru lislaam mooy mooy buur bi mooy buuru lislaam moom moo leen jiite mooy jiit bi daal kooku moom dina dafa tukki que fu mu dem mën na faa jiite fu mu dem delloo dafa dugg lu sori dem beneen dëkk su demee foofu mën na fa jiite mi mu ne waxee yu mi man si mi man si ñi nga xamante lam taji waru alayhim si ñoom mu ne mistar dañ sarta an yakunu mu nekk almusalli aji julli gi bil jamaati si mbooloo woo moom alxaatibu mooy aji xutba gi illa li onzir li mooy ngant almusalli mooy aji jiite daal illa li onzir li mooy ngant yam na mu bëgg min zalika si loolu mu danañ sart imaam yi dañuy sartaal ci moom moom mi nga xamante ni moo xutba mbooloo mi mu jiite leen waaye bu fekkee ne dafa am ngànt comme dafa dem ba si kanam feebar daañul ko bu waa man keneen mën naa jiite wala mu dem ba si kanam ñu ne ko ah sa sa sa yaay gaañu wala sa dara mu mu mu découragé wu ba nga ni yow kii dalay leer na isaan yi nekkatul ba man nañ kaa remplacer keneen waaye bu fekkee ne dafa dem ba si kanam rek comme mu dem ba si kanam rek. a ah, tojle bu ama mën nañ kaa xaar mu dem jàpp ñëwaat mu ne min min maradin si feebar si feebar aw junun wala dof aw naxwi zalik wala yu mel ni yooyu mu ne moom lay jox misaal comme imam bi dem si kam feebar feebar dikkal wala mu dem si kam xel mi dem booba kooku noonu dañ koy remplacer way yibu dana wa intizaaru xaaqul lil uzri bu dee ngant alqari bu jege xala asay su lu gën a wér bu fekkee ngant bu jege la moom comme dafay jàpp ji rek yooyu comme lu ma waxoon sànq ba tojee dem jàpp ji loolu moom mën nañ kaa si wax ju gën a kon am na ñu ne dañ koy xaar waaye lu gën a wér daal mooy dañ koy xaar alxamisa bi mawdiul istitaani mooy mooy barabu dëkkuwaay bi fala tuqaamu duñ taxawal aljumaatu juma illa fi mawdi lu mooy si barab yustawtanu darañ dëkk fii si wa yakunu dana nekk mahallan di barab li iqaamati ngir sax yumkinu dana nekk almathwa di saxwaay ah, fii si moom baladan fii si moom dan dëkk bu mag kaana nekk na aw xariyatan wala dëkk bu ndaw nee na juróomeel ponk yi mooy ñi barab bi na nekk barab boo xam dañ fa dëkk barab dëkkuwaal comme dëkk la fi ñu taxawal jumaa ji foo xamante ne nekk barab boo xamante ni boo xam ñoom dañ fay sax comme foofu mooy seen dëkk foofu la ñuy sax moo xam dëkk bu mag la wala bu ndaw ñoom day ñëw fii si ñëwee fii mën nañ fa a toogaat weer sax dem comme ndura naa bi ñoom ñu xam nekk si àll bi toog nawet bi su jeexee yooyu ñuy demaat yooyu loolu loolu foofu duñu fa samp juma kon dëkk kon nañ samp juma yi foo xamante ni nit ñi dañ fay dëkk moo xam dëkk bu ndaw la bu mag kon juróom yooyu la bu ci njëkk mooy nañ nañ ne jàkka ji nañ nekk jumaa joo xam ne nit ñi fi mooy na nekk mbooloo mbooloo si Malick amul doye mais bu fekk gën a tuuti li nga xam ne borom xam ñoo ko mooy fukk ak ñaari góor kenn si tollee lépp yàqu wala kenn manqué si ñaareel ñetteel ba mooy xutba bu njëkk bi ak xutba bu ñaareel si si lu gën a si ba mooy am imam juróomeel ba mooy am borom dëkkuwaay boo xam ne foofu la ñuy dëkk sax mu ne mu jàngal wa ama adabul jumaati waaye tegg jumaay tegginu yoo xamante sooy dem jumaa war nga xaa def mu ne fa samaanitun juróom-ñett reñ nag al awwalu bu njëkk bi al xuslu mooy sangu lahaa ñeel jumaa ji wayya moom wa huwa moom sunnatun sunna la hindal jamhuri si si mbooloom borom xam-xam wa min shuruti bokk na sarta an yakun mu nekk muttasil di aji jokk bir rawaay si dem nga fay nit nem sangu na wastaxala mu soxla bi xada en si aw naaw min wala nalaw a ah, na baamu alxuslu sang al masuru si gën a siiw nee na tegginu jumaa njëkk mooy sangu sangu ñeel jumaa loolu sunna la dinga sunnaal waaye nag bul sangu ba pare mm, sangu gi sangu da kaa war a jokkaleeg dem gi comme daa war a sangu rek pare rek def pare dem mais sangoo ba pare ni damay añ ba pare dem wala mu ne xaama nalaw tuuti ñaari rakan nalaw lu toll ni tuuti rek dema yooyu loo xam ne toll ni ñaari rakan yooyu dem wala sax muy muy nekk foofu di naan ataaya lu xamul boobaa kooku sangu daf koy baamtuwaat boobaa sangu da koy baamtuwaat su du gën a siiw mooy da koy attaani ñaareel bi asiwaaku mooy soccu ñaareel bi mooy soccu soccu sob adu tegg na jul tegg ni jom jumaayel noto lu baax la noto yo tibne soccu faj ah, feebar yëpp bam des de athaalis ñetteel bi xalqu shaari xalqu shaari mooy wat karaw ñetteel bi mooy wat karawam comme karaw gu fekk daa sëq mu wet ko wàññi ko mu rafet daal loolu yëpp si tegginu jumaal arrabiu ñeenteel bi taqali wala fekkee sëqan tamit taw bëggul kaawat mu peñe ko rafet ko ba mu rafet waaye moo ko gën moo gën mu bàyyi ko muy cuqaaral noonu arrabia ñeenteel bi taqlilu azafiri mooy leele ay weewam ñeenteel bi mooy mu leele ay weew ba mu yemoo rafet moo gën mu bàyyi weey di ñaw ba nga xamante ni su leen laalum kenn rek mën naa dagg yooyu mu leele weey daal ba mu rafet alxaamisu juróomeel bi tajannubu mooy tajannubu mooy teet maa nga xamante ni te wala doon juddoo minu si moom arraihatu xet alkarihatu bu bon mooy alkarihatu bu salte daal juróomeel ba mooy mu teet lépp lu nga xamante ni xet bu bon dana fa jógee ko lu salte daal mu bàyyi ko asaari si juróom benneel bi at tajammulu mooy ah, at tajammulu rafetlu bi siyaabil xasanati si yére bu rafet juróom-benneel bi mooy mu sol yére bu rafet bu fekkee am na ko sol yére boo xamante ni xam nañ kii daal daa pare pour dem waaye ñu sol yére boo kenn xamul nu mu demee nga dem julli ko loolu moom des naa rafet ndax ajuma feere da war a màggal waaye bu fekkee nag yére boobu rek nga am wala sax yéen seen kër sori na fii nga nga julli loolu ndax loolu nga am asaabi juróom-ñaareel ba at toto mooy parfum juróom ñaareel bi mooy parfum wu mooy parfum wu ñeel ko juróom ñaareel juróom ñaareel bi mooy parfum na nga parfum wu sooy dem juwan na nga xet xet bu neex asaaminu juróom ñetteel bi almasyu mooy dox lahaa ñeel jumaa ji doona rukk bi su war illaa lu musdir lu mooy ngant loo xamante ni yam naw dana ko tere mi zaag su dul juróom ñetteel ba mooy mu dox dem ba jumaa ya dox dox ay tànk bu fekkee nag comme mu dox ko bañ a war comme mu bañ a dugg euh, siret baa mu bañ a dugg oto baa mu bañ a dugg ay vélo yooyu moto yi mu bàyyi mu dox moo gën boo fekkee dafa am ngant comme moom instant tànga maa ngi te mënut a dox wala sax moom jumaa ji sori na sori goo xamante ne su dox sax balaa mooy yegg gaa yi julli ba pare waa boobaa moom mën naa oto kon teggi ni jumaa yi juróom ñett bu si njëkk mooy sangu ñaareel ba mooy soccu ñetteel ba mooy wel sa karaw ñeenteel ba mooy leelu weey juróomeel ba mooy teet la yëpp li nga xamante ni xet bu naqari dana fa jógee juróom benneel ba mooy sol yére bu rafet juróom ñaareel ba mooy parfum juróom ba mooy dox te doo war dara mu ne wa amal ahdaaru waaye ngant yi nag almubiyaatu yooyu dagan li taxalluf ngir wuti àndaa jumaa ja ngant yi nga xamante ni soo mën naa tax nga bañ dem jumaa mu ne min daalika bokk na si lool almatru taw ashadidu bu tat bu fekkee taw yàlla ji dafay taw taw di taw taw bu tat sax bu métti ba xam soo génne sa yére dana tooy sa wala sax mën nga faa jëlee feebar boo am ndax mën ngaa bañ dem wal ak batoxo alkasiru bu bëri mu bu fekkee bu fekkee tu mbedd mi am na batoxo nga xam soo daga sa yére tooy danga salte bu waati mën nga toog batoxo bu bëri bay bëgg a dee wal mu ak ngaana allazi bi nga xamante ne taduru dana lor raayatu xitam bil jamaati si mbooloo bi mu ne ak ngaana ni ko xam dafa ngaana te gi mën naa lor mbooloo mi julli di leen xëñoon loolu dafa xaraam sax mi dem jumaa ja dafa xaraam mi dem jumaa ja ndax su dee nit yàlla lislaam bëggu sax nga lor sa bopp bay lor nit ñi mu ne wal maradu ak feebar bu fekkee dangaa feebar si man lor man mën ngaa bañ dem wal ma tamriidu ak feebar le bu fekkee dangaa am ko feebar sa dooma feebar wala sa jabar feebar wala sa yaay wala sa papa wala sa rakk wala sa mag baa man ngaa bañ a dem jumaa ja nga nekk si moom ba an yakuna su ma nekk hindew si moom ahadun kenn min ahali si njabootam maridan ah, di aji feebar ka zawjati kan comme soxna wala ak doom wa ahadu abawayn ak benn si ñaari waajur wala si nekkul hindew moom man yauluhu ku ko man yaaxonluhu ku ko wuutu fa yaxtaa dina soxlo ila taxaluf jëm si wuutee tam tamriid di ngir feebar leen mu ne feebar la comme jabaram feebar wala doomam wala kenn si ñaari waa juróomi boobaa te moom rek moo ko mën a wuutu bu fekkee nag comme moo feebar te mën na kaa wuutu macha allah dana ko topp topp topp topp bu baax waaw naa dem julli ji waaye waaye nag fekk kenn mënu kaa toppatoo moom rek la lañ gis ne moom moo ko mën a toppatoo boobaa il faut mu toog toog toog a nekk si bu waa loolu moom mën du dem julli ji mu ne wa min daalika bokk na si xam ngant yi nem sukuraat na aadun kenn min aqaaribi si jege ñaarem ak ixwaani wala mbokkam xoola wax na malikun malik fi rajuli si góor yam yam dana dana xalaku yowmul jumaati bisu juma fa it dana wutee ndaw sa mu ne bu fekkee kenn si mbokkam mi wala jege ñaare mi daal kenn si sukuraat kenn moo si sukuraat comme kenn gaañu boobaa moom ah boobaa moom mën naa bañ a dem juma mën naa nekk di ko toppatoo xool luñ ko war a li luñ ko war a defee luñ def ba war ka suul loolu mën naa wutee juma ji bañ a dem mu ne fayda xalaf dana wutee ndësu moom rajulun ab góor min ixwaani si mbokkam mi yanzur dana xool fii sa ani si mbiram la baasa garaawul waaw nee na bu fekkee comme kenn daa gaañ si moom bu moom moo mën a toppatoo ay mbiram yooyu waaw moom garaawul na bañ a julli ji mu toppatoo ay mbiram fii zaalika bokk na si ngànt yi wa mina mu ne fii zaalika si na si la xaafa bu ragaloon an nafsi si boppam min min min min darbi zalimin ci dóor aji dóor aji tooñ mun aw xabsihi wala tëj ko وأقضي ما يلجل ألم وكذلك نكون المعصر أجي من المعصر أجي المعصر أجي ناك يخاف دنا رغل أن يحبسه متك غريب غريمه كليام على saxi si lu gën a wér mooy naka noonu tamit ki nga xamante ni dafa ñàkk dafa comme dafa yore kenn bor te mënu te sant yi amul fay ko te waaye su génnee rek waaye mën na kaa boole police ko boobaa kooku noonu mën naa bañ a dem julli juma si yu gën a wér kon am na ñu ne day dem julli juma wa min zaa bokk na si loolu bokk na si loolu al ama gumba ala si ka xamante laa xaay eh, day rek xombat lawu di ko ñeel amma law kaana waaye bu nekko lawu di ko ñeel xaay dun man si ñi xam di yattali dana juba yóbbu boobu li jamaay ba si juma ja bila xaay dun si do omot fala yisu dëggan lawu ñeel ka toqal fuuti am naa si moom nee bu fekkee gumba la ko nga xamante ni moom il faut mu dem jumaa ji waaye paa bi amul ko omat mu dem jumaa ji waaw moom mën naa bañ a dem julli jumaa waaye bu fekkee nag moom su ko suñ ko xamante suñ ko amatul yëpp moom man naa yóbbu boppam ba jumaa yi waaw mu dafay dem kon boo du wute jumaa il faut mu dem julli ji waa du man a ñàkk dem mu ne wa yaxar mu dana xaraam a safaru tukki inde zawali jamono tusubaar min yawmil jumaa si bisu jumaa jamono bi nga xam ne tusubaar jot na bisu jumaa nga dem ngay tukki te yow nga soo tukkee ah bo fekkee looy tukki daaw sori bu waa doo doo julli jumaa loolu nga toog julli jumaa pare moo gën nga dem moo tax julli moo tax bisu àjjuma gars yi bëgguñ di tukki lu bëri bu ne mu ne alaa si ki nga xam ne dana waa alisim aljumaa jumaa su loolu nag luñ ne ah dafa xaraam si tukki si nga xamante bis juma ñi tukki loolu si ki nga xam ne juma war na ko waaye ki nga xamante juma warul ko comme dafa ki yooyu wala wala ah, jigéen boo mën naa tukki ndax juma waru ko mu ne kat jigéen nag faa dinaa jigéen bu fekkee jigéen bi nga xamante ni comme la mère bu màgget mère bu màgget kooku moom boo mën naa julli ji waaye bu fekkee jigéen la bi nga dafa dafa ñaaw ba nga xamante ni daanaka kenn du ko xool noonu ba waa kaw dañuy mu julli ji mais bu fekkee jigéen bu rafet la moom dafay xaram mu julli kon bu fekkee mer mën naa julli waaye fekkee xale bu jigéen la ba xamante ni daanaka nit ñi mën nañ xool ba waa bu kaw dañuy day mu julli ji mu ne waga zalika nako dana xaram alayhi si mu ko la wax wa naafilatu ak naafila wal imaamu te fekk imaam yaxtub mu ngi xutba sawaan moo xam kaana nekk na fil xutbatil ula si xutba bu njëkk bi awi saani wala bu ñaareel mu ne naka noonu timit dafa am ci mukallaf mi wax wala mi naafile jamono ba nga xamante ni imaam mu ngi xutba moo xam xutba bu njëkk bi wala bu ñaareel wurto nekk du wax wala mi naafile mu way ji dana toog ar rajulu góor wala yusalli waaye du julli illa an yakun lu moom nekk talabasa di lamboo bi naafilin si naafila qabla duqul imam njëkk dugg imam fii dana motali saay ko loolu nee nag waxu dañ na du julli si imam dina ah, xutba waaye nag bu fekkee moom commencé woon na ba am benn rakka wala sax amagul benn waaye commencé na julli da rek imam dugg si commencé xutba bu waa su imam tàmbali tamit day continuer julleem gi noota du ko yàq day continuer mun wa yaaram dana haram albayu ngu jaay wa shira ak jënd indal azar si jamono nodd jamono bu ñu noddee booba haram na ñu jaay haram na ñu jënd haram na si jaaykat bi muy jaay haram na si jëndkat bi muy jënd kon si ñoom ñaar ñëpp la haram mu ne mu ne ataani ñaareel mu ne asira jënd indal azar saani si jamono nodd ñaareel bi jamono nodd ñaareel jamono bu ñu noddee noddum njëkk bi ba haramal guñ ko mais suñu noddee noddum ñaareel bi lañ koy haramal mu ne woyu soxu danañ koy fecci in waqaanim taabila way ko danañ ko danañ si tarkul amali bàyyi jëf yowmul jumaat bisu bàyyi liggéey yowmul jumaat bisu àjuma nee na fekkee dafa daña ah, ah, dañaa jaay dañaa jaaykat bi jaay na ba jëndkat bi jënd ba te fekk ndoor dañ na dub ñaar répété ba bi dana jëlaat ah, lu mu jaay nu jëndkat bi jëndkat sam ñi dañuy fecc lii bi daal jaabi mu ne tar mu ne wékkaloo sim ko tarkul amali bàyyi liggéey yowmul jumaat bis juma nga jël bisu juma di si bàyyi liggéey ngir màggal bis bi loolu dañ kaa sib waaye nag bu fekkee nag loolu si kañ la ngay sib mooy bu fekkee yow jour juma bis sa bisu liggéey la waaye yow yaa yaa ko bëgg a jël noonu mooy lislaam moo tax bëggul kenn soo defee noonu sa yow mën naa yàgg ñi dàq la waaye fekkee nag yow yaa ko jël yow yaa jël bisu juma def ko mii sa bisu noppalukaay boobaa tamit nga def ko baax na bo nga yàgg jël def ko si bisu noppalekaay boo waa ba mu si wuñ ko ni gars yi jëlee def ko seen jour noppalekaay yow nu nga jëlee ajuma def ko si jour noppalekaay ngir boo waa dara nekku si waaye nag yow ajuma nga war a liggéey liggéey boo waa loolu lañ sib nga dem julli julli mu ne waxtaan nu waxtaan waxtaan fulu ak naafile waxtaan fulu imaam ak naafile imaam xabaral xutba di njëkk xutba mu ne mu ne imaam avant mi xutba mu naafile loolu dañ kaa sib waaye nag mu fekkee nag avant comme imam ñëw ba ci jumaa ji daal war a xutba dem di naafile loolu lañ sib waaye comme imam fa la war a naafile moo su nekkee këram su nekkee këram wala mooy xutba mi jaaroon pour ñëw mu taxaw foofu naafile ba avant mi ñëw loolu la war a def waaye warul ñëw ba si nit ñi mu naafile door jug xutba déedéet mu ne wakazalika naka noonu yu ko raw sib nañ li jaalis ñooy aji toog an yeta nafala mu naafile inda al aadaana jamono nodd al awal bu njëkk bi mu ne jamono bi ñu nodd ndëkk bi nodd bu njëkk bi sib nañ ci toog na mu jug di naafil mu ne way ko raw sib nañ xuduru saabati teew ak jànq mooy bu jóge lil jumaati si ñeel aju ma ko zaal ko noonu asafaru tukki bandal faje gannaaw fajar nee na sib nañ mooy li ñu wax sànq rek comme jànq mu ñëw di di di di julli si ajuma waaye nag bu fekkee jàng boo xamante ni nit ñi dañ ko xool lañ la wax oh, loolu jàng boo xamante ni dafa dafa ñaaw ba nga xam ne nit ñi daa duñ ko xool noonu koo leen sib si moom mais bu fekkee jàng boo xam ne dafa rafet ba nga xam ne nit ñi mën nañ di ko xool ba waaw dafay xaram si moom mu ñëw kon naka doon tamit ki tukki ah, fajar ajuma loolu lañ ko sib kon wallaahu yàlla alam moo aji xam moom lu mu wax danaa wallaahu kon loolu lañ jot andi si suñu darsu tay bi lu si jub si yàlla la lu si dëng siñ gàttu xam-xam la ak siñ néew gëstu in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu